soxna si balal ma kaay. kar macha allah sa solin rafet na jekk na jigéen bu wax nii la mooy solee si weeri man nag mag la te wax si mbedd bi fii nag mënuma ko tur bi. Fatima. Fatima. Diallo. ma ne ko Fatima ma ne ko Fatima Xalilullah tur bi sell na. man nag kilifa la ba pare xam nga ñu ngi si weeri kilifa du taxaw si mbedd di wax balal ma nga defal ma fii nii sa téléphone numéro bi. naa la kool waaw lii la ah jigéen bu baax jabar booy mu laa toogal ndogu booy di la toppatoo di la defal lu nekk booy amuloo dara loo def weeri koor bi nga ñëw toppa ndóo bi booy di ko jéem a can booy man dama kees ndóo bi la jël na mbaam bi kii man ma tasee moom su yoon bi muy soo dëkkandoor bu baax ma tasee moom di ko nuyu di jàmmalante moom ah nga ne man dama ko nekkati ko kiss du ni ngeen ne da ngeen di yaaxa der kilifa yi su gox bi man do ya suma der su gox bi fi ni de da nga man ni ma meuna egal égal xanaa man taxaw ma ma degal lo len di wax yeb tey la xam real international nga international plus professional boy Yo boy nga ngay nga ma degal nga ciando bi be tap tap nih nga jël nombaam ci digante bi nga ma wallan nga ko wone yo kilifa nga yo ban façon kilifa nga yo ban façon kilifa nga suma waji kero ma ngi ñew sa sa boy di jéem a sam sa bi nga génnaat sa jabar di kilifa kilifa lu di ma jéem pes tey red handed laa la kaj bo sutura ma nag ñu sutura ma sa gémmiñ ñu nga ma sutura sutura ma waxal la ko nga digga ko ah sam bindaan bi foog ma def si nii waaw nga sutural ma si jàppale ma si sa nga li ma laa wax ni ma jéem laa sutura si lii lii weeri koor la de suma waaj te yaa ngi am njaboot everybody xam nga ma rek sam bindaan bi wala ma wàccal ah, sutura ma rek xam naa lu ma laa wax de naa ñëw sa kër naa fa ñëw dégg nga ah, ok pour nga amee ko noonu voilà nii rek lañ koy def ah di bàyyi problème bi mu nekk xel nii rek booy du turu fii nii rek ah xoolal ma nii soo waxee ñu ne da soo waxee ñu ne da nga bëri wax xoolal. laasu lago mu ngi nando nando si wee yaale bi subhanallah kan moo la wax maa ngi nekk di nando ah yow kuy naan ak kuy jàppa maa ngi jàppa moo tax laa sumul lago mu ngi nando ah man xale bu mun fen rek laa bañ a gis. naandoo si wér ko bi dari yow kilifa bu toll nii yow ngeen naandoo si wér ko yàlla bi. man damaa nekk di jàppa nii. si yow bi nit dina xanaa satala nekk fi booy jàppee. nga jël si yow nga ne yow yaa ngay jàppa. kilifa da de def yëfi kilifa si wér ko yàlla lañ nekk xale ndaw yëpp ñu ngeen or nga nekk fii bugg a naandoo kilifa da ngeen def yëfi kilifa. man kii waay. ah man xale mun a fen rek laa bañ a gis yow ràññeewloo kuy kuy jàpp